ah cim ah lax loolu de. papa chéri yi noo def. loolu wuy. kontaan si sa teewaay de. kontaan naa de lii. faranko. maa wóolu sama waa ji. en tout cas kontaan naa vraiment. Ah. ñoom dogg si bi moom beneen affaire la ci man. bilaay ñoo la gën a kontaan xam nga ne yàqoo suñuy ñaar fukki junni de. ah lu ma ci yàq ah. na ñaar ko a ma ne ñu jox la ko ndogu. ay kàlla nii rek nga mën a def. maa wax loolu jar na jar na. Ah. daa gaaw sax waaye bu gaawoon nga xam bu ñu ko jàppoon ay quelques jours. ah la kon fi yàqu. li ma la waxoon keroog rek. wal ko boog nooy nepp. déggal lool. waaye dinaa la xamal leen ah. sa orange fi mu toll. Ah. yaa ngi may sa clémentine Mourtani Mourtani. déggal lool Maroc Maroc Maroc Maroc Maroc Maroc Maroc la. xoolal di la ko teeroon rek nag. moo tax bu dolli rek ma dolli. moo tax ma ne ah. moo tax ma ne ko noir deben noir deben <laughs> ñaari noir moom. pour léegi rek. macha allah kaar macha allah xam nga si yëf sama yëfa waaw mi ngi noonu dama ci barkeelu sa kaw mu ne te tegal nii sa kaw lii gëj nga ko am de musuwaar ci sa kaw waaw sant yàlla ay soleil rek nga teg sa kaw waaw waaw gërëm yàlla rek ay gërëm yàlla rek yàllaa fi ne de mi ngi noonu waaw waaw suñu rek a fi nekk nag waaw waaw man man man moom ma jël kii rek bàyyi ma jël ma jël kii waaw kon jigéesil ma góor bi kon. jigéesil ko tuuti. daa daa taa mu dugg may nga nag. waaw may nga defal pomme de terre dégg dégg bu ko tooñ. may nga defal pomme ak soble. bu ko tooñ nag yooyu tam nag foofu baal naa ko baal naa ko. waaye nag damaa bëggoon ñu waxtaan tuuti hmm. nag. Hmm. xam nga ndogu des na. des na ay quelques minutes. Hmm. waaye lii day dalal xel. waaw di jàkkaarloo ak moom. <laughs> Eh, dama bëggoon ñu waxtaan tuuti ndax Wolof Njaay ne na réeroo amul ñàkk waxtaan am mhm. donte yàgg nañ ci koñ bi di rombante te euh, benn relation mosul seq nekk suñu diggante kon lii bu nekkee suñu diggante damay daal di kontaan mhm. benn instant mhm. damay kontaan trop vraiment léegi nag maa bëggoon nag alxayri bi ngeen taxaw ci nu mu gën a gaawee maanaam mbirum sëy xam nga mag du fo waaw te lu baax boo koy def da ciy gaaw maa bëgg ngeen taxaw ci alxayri bi maanaam daal bisu tey bi bu dellu see daal ah bëgg naa nag mu nekk boroom kër gi nag ah. kooku moom damay wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi ndaxte keroog ba ma ñëwee jàkkaar ak moom daf maa wax kat waxu kilifa mu ne moom day bu desee si moom pare na waaye nag daa njaboot hmm. et pourtant bu ko neexoon mu engagé ndaxte jigéen kët bu amee borom kër. ba tàggoo ak moom wala borom këram dëddu àdduna. Mm-hmm. am na droit may boppam. waaw. Mm-hmm. waaye gët mag du fo. yaa ngi sóoraale njaboot. moo tax mun a xaaral ma waxtaan ak sama. doom ba pare. sa mm-hmm. kàddu yi mu wax nii kët. ni mu waxee nii. gëm naa ne waxtaan naa doom jokkoon ba pare. waaw waxtaan na ak moom ba pare moom. ndax yaakaar naa moom yaakaar naa moom waaw ni nga engagé woon nii. xam naa ko waxtaan na ak ba pare moom. léegi nag ginnaaw loolu. Mhm. bu njëkk. may ko diisal damay def ne ñoom maam doon def rek. loo joxe baax. li ñu doyee de xam naa dañoo war a wax ne wér nga rek xam naa loolu nga ñu doyee xëñ na sa woto bu bëri gii. avance léegi raka juma trop xaw ma lan mooy sa problème doyoobu leen loolu xam leen doyee du xam ngeen ni suba la korité dama bëgg ñu dem suñu sama kër yaay ñu korité fi ñun ñëpp voilà ñu def ñu def korité en famille ah je pense que ça va bu ah. yeggal kër gi duñ fi bougé maître naan ñu ngi dem di korité ci waaw na xamoo sa bopp de yow sa yaay dañoo ëpp ay ginaar wala la jéeg la ñuy jéeg. Ah. ah. fii la ñuy toog bu mënee ñëw bu mënul mu toog kër. ah loolu nga may tontu yow. lu nga la wax kay. fii la ñuy toog côté suñu kër fii. mais lan mooy seen problème. <laughs> Ah. ah léegi damay wax kenn du ma faale. ah damay wax ngeen may saaga bi sànni xeer def lu kenn xamul. yow li nga daa mel maa ngi dégg ndog kii bi nootu bi. nootu waaw nootu jot na waaw ndog jot na fay looy def. daa mel yàlla lu sama eh, maa lox loolu ndogu bàyyi jiit la lay am foofu. waaw ndogu ah, maa ngi ci nii. yaa maa ngi ci nii fay laal ma laal ma nii. maa la wax lool Alaaji Fara. les les courtiers. Eh, mais yow dina la yóbbu lim de millier ah. dina la lim de millier. mais mais lim de millier bi day leer de. maa day leer naa ñu waaw wala boobu. ay dama koy dagg. ay dama koy waay. fara fara. duñ koy dagg moom de kenn mëntu kenn du na mënul loolu waaw def ba mu baax allahumma laka suntu ah. bi ka amantu ah. wala risque abaru màqate waa li màqate waa xam ah. man laay dogoo tey ab li ma am def nga lu ma gën a def turki jàpp ne du ku ma ko waxoon du ma ko gëm problème yaa ngay eh, démarré nag li ñu wax comme guerre lii nag mooy guerre nag laa ilaaha illallaah jëlal ma ngay def wala boog ba boog muy sama ndey turki jàpp